kon dinañ jox sëriñ Cheikh Bassirou ibnu sëriñ Abdul Xaadir mu indi kàddu yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi qaa'il fi muhkami tanzilihi wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan wasalaatu wasalaamu ala man bu'itha mualliman sayidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli al-ihsan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci ndigalul kilifa gu tedd gi cheikh Mouhamadou Mountakha mi xam ne moo fi tey jëmmi Serigne Touba ci kaw suuf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 xelam dem ci ne war naa def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dox diggam ak loolu iza sakartu zalika al mabita wa zalika al wa thubuta taarat ila jihaadi bil armahi nafsi walakin zabba an maahi kon nag jàkka ji nañ xam ne le sëriñ bi waxoon sëriñ bay saar ci jumaay Tuubaa ne ko danaa bàkk sama bàkk dafa jotugut sama dëkk ba ci Tuubaa ak sa sama jumaa ja ma fay taxawal mooy sama bàkk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 turu Cheikh Mahamadul Muntaqa mi nga xam ni mooy xalif général de Mourides te ñu mu naalal sëriñ bi naal bi mu ko naalal ca Ndakaaru ànd kook mbokkam yeeg taalibe yëpp ba ñu toll ci war ko ubbi war koo jullee ni ko Cheikh Mahamadul Bachir waxee rek ñu jàpp ci date bi mu tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre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 nekk ca tamit ca waxtaan yi nga xam ne dara génnu ci diine dara génnu ci lislaam dara génnu ci tamit mbindum Serigne Touba bu ñu demee ba ca guddi ga mbokk taalibe yi ñu ànd ak ñoom it rek nekk ca ci njàngum xasida ma ak njàngum alxuraan ca ëllëg sa di talaata di bés boo xam ne bii dañ koo jagale suñu maam jaaratullaay soxna Mariama Bousso nga xam ne moom la ñu jagleel bés bi nga xam ne def nañ ca thème yoo xam ne boo koy seetlu. mooy thème yi gën a rëy sax ci thème yi ndaxte daanaka suba gi ba ca ngoon ga yépp ay waxtaan la yu jëm ci diine yu jëm ci lislaam ak yu jëm ci li nga xam ne lii mooy njàngalem Serigne Touba guddi ga ñu jagale ko nag suñu jàmbaar ju mag jooju di maam Cheikh Ibrahima Fall di taalibe bu magub Serigne Touba bi nga xam ne dañ koy jàggale guddi googu yépp mu nekk li ñuy tudde maanaam guddig maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu yàlla yóbboo nag ba ca àllarba ja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 ban agal ci la ci suñ suñ yéene euh, weesuwul euh, mbirum sëriñ bi rek euh, biñ ko gisee biñ ko noppee gis ci boroomam rek la nekk lim ko doon liggéeyam bépp itam mi ko tëkkoon ci te mu ngi ko tënkoon ci ilaahu kalimatillahi al-ulya baatu suñu borom la ilaha illa allah rasulullah loolu rek la woon loolu nag naan ñu si yàlla àggale ban àggale si suñu ba teewe ko ba jëf jëf jëf ji lañ nañ ko war a jëfee na mu gën a rafete yàlla nu yàlla gàttanu tawfeex ban ban ban ko àggale euh, foofee nag euh, nu yàlla gën noo dimbali ba gën a mën a yeesal sunu sunu sunu sunu sunu sunu jaayanteeg Sëriñ Tuubaa euh, ci liggéeyam bii nga xam ne moom la nu fi bàyyil foofee nu gën fa yeesal sunu jaayante Euh, fas yéene ko taxawal ci liggéey bi euh, sunu kéem kattan lu nu mën ñu def ko ci taxawal sa sàmmal ko liggéeyam bi lu nu mënul nu jéem ko ba tële. alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Bass ak euh, sëñ Mouhamadou Mbacké li ma tax wax nañ ko xanaa li ma ci gën a dolli ñu xam ne woo nañ ñëpp bokk jur di yëpp.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 ñoo si yem képp ñoo ko ñoo kilifa diine yi ndax ñoom ñoo fi di sàmm diine te dem suñu Sëñ Tuubaa leen ci woo te ñu te dina xamal ne liggéey bi kat noo ko bokk noo noo noo ko bokk appelé wu leen ci dara kon nag il faut ñu